Assane bëgg naa la. waaye delloo ziar ziar naa nga Pagara. mbaa Assane bu ordinateur. waaw waaw waaw waaw kontaan naa. naka coono bi. non instant keeke moom mooy loolu but naa but nu quoi. yow xanaa dooy sonn Assane. non sax mais xam nga rek ah lambu mooy sama direct quoi dama say. barki démb nga jógee Dakar tey nga ñëw ci lamb yi nekk ay combat nga yoo xam tey tey lan ngay yëg Assane. non xam nga lan la man dama kontaan ndax. lambu kese mooy sama deret ma su ma amee une semaine boo xamante ma demuma lambu sax damay jooy baay li ngay wax lu ma la lu ma boo toogee semaine demoo lamb da ngay jooy damay jooy lan moo lay jooy loolu ah xanaa mbiru yàlla la rek waaw ndax bi may dem la bi dem lambu ba léegi nii lay toll muy dëgg est tay lambu mooy sama deret quoi bilaahi tay lan ngay yëg ci lamb bi tay ak lan moo la indi tay ci Ngayokhème ci combat yi non ah Mansour moo ma indi dañoo am ko combat mu teew kon solo si pour mu amee pour mu am pour moom bu amee combat war naa teew quoi. mooy solidarité waaw mooy solidarité. ngeen amoon combat lool mu bëri woon coow diggante ordinateur ak Ousmane Gandigal gaal coow bi bëroon na trop mais yàlla may na leen victoire ci xol bu sedd guy préparation bi mbaa jafewul woon. non non jafewul xam nga ñu moom dañuy moon bés quoi bu nekkoon sax tournoi dañu dugg sax di compter Ousmane Gandigal ndax instant yi ñun ñoo bomb mais xam nga lambu combat moom uh-huh. boo ta liir sax uh-huh. il faut nga préparer uh-huh. mais combat bi sax nu may nu may bi metti ma neexuma parce que am daan moo tax victoire bi neexuma jàpp daan la waroon doon parce que maxinil moom du sama affaire du sama affaire yow daal ordinateur jàpp Ousmane Gandigal daan ko moo neexoon quoi bilaay walay taala li ah. nga man féetuwuma ci combat bi. lu tax féetuwa. dama mer. mais victoire victoire la. non mais victoire am na bu mag am na bu ndaw. muy dëgg. waaw xam nga par avertissement moom xam nga du victoire bu neex. Uh-huh. victoire bu neex mooy jàpp nit ki daan ko. mais waroon ngaa féetu nag ndaxte dañuy waajal 31 décembre kon boo leen amee victoire war ngaa mun a féetu ndax dama miin bés. te ah. bés bi ma miin moo gën a neex bés boobu noonu. Uh-huh. waaw mais xam nga lan laa bëgg ñu jox ñu ci poids lourd yi ponkal yi. mun na mbërëm champion du senegal double champion d'Afrique tey jii instant nii mu ngi laaj ñoom Zarko est-ce que yow ordinateur jot na mu laaj ñoom Zarko. ordre bu jotee dara doo sax day daan Zarko daan bu yomb. li nga wax. mooy am. Ah. mooy am xam nga ordinateur maa koy tàggat moo ma mag mais maa koy tàggat. waaw bu booree sax borom bi xaw a des day ñëw ni Assane borom bi uh-huh. leer na wala leerul nii la ko waxee leer na wala leerul bu leerul nii la ko waxee yokkal bi defal lii defal lee. moo ma nag mi dama ko miin xam naa ko bu baax bu bëree bëre ba xamante ne ah du bërëm nii la ko waxee li nga def ni du du bëre muy dëgg waaw. mais mbégte bi aussi tay ji loo leen di ñaanal waa Sénégal tay ji ndaxte yàlla may na leen victoire ordinateur du ñu wax ordinateur bu ñaaxaar mais ordinateur bu Afrique ordinateur bu senegal tay ji waa diaspora bi di koy bëgge tay ji mu amoon bés yàlla may leen victoire loo leen di ñaanalee ga yi nga xamante ne jàppane leen ci bés gaay contane na ci ñëpp di contane ci ñëpp man Azar dama gis ne ñëpp suñu supporter la xam nga far moo dul ñak rek ndaysan do itam ah ñi far ñee ñee far ñee moo tax lamb bu neex mais ñëpp bu faron ben côté yuuxu bi du neex mais di wiro ngaayo bi mo neexal boore sama mbor moo zambor zambor mbor sama mbor lolu mo neexal boore quoi lolu contane na ñaanal ñëpp jam xam nga ah nit mom. boo gisee nit koo xamante ne sax noonu la sax yéene ko jam rek yéene ko jam rek xam ne yàlla mooy dogal na nu gis nga nit bu bañee nit ah, natoom la rek natoom la ndax nit warul bañ kenn bilaay ndeysaan loolu la kon ñu ngi lay jaajëfal bilaay ndeysaan xam naa dinañ déplacé seet si la waaw waaw defal loolu foog ñu def ci parcours bi ordinateur ndax tey ordinateur tey ji parcours am yaa ko jàpp ndeysaan dëgg la boo mu bëree drapeau 5000 maa ko moom ba léegi la 5000 nga bu mu ànd ak labu bi du am way du am tege. waaye li nga wax. waaw moo bu kon 5000 danga po 5000 nga ànd ak ordinateur ba nii. mu tolu ni lu ne nga koy dégg. bilay ndeysaan. noonu la. merci kontaan naa ci ñaanal la ñep jam ah ibu ibu itam maa ko ñaanal jam li dem ba mujjee bi lay wala taala ndax li rek moy jam gis nga mag ak ndaw yak xale yak ñëppay kontaan li rek moy jam quoi. bilaay ndeysaan te man moom lamb def maa neex kontaan naa. ziar naa la. delloo ziar. naka mu nag. waaw nice. gis naa laa gis sotti de bi ngay daan baabu. waaw gis nga noonu la demee. bi ngay daan Moussa boo ba léegi gisatuma nga def sotti lan la. Ah, yàlla ko dogaloon quoi xam nga mais pourtant maa ngi def a quoi xam nga ah, maa fi naawul woon fii nii. fan ah, démb rek si biir. fii nii nu mu tudd yow ah. xanaa ñaaxal ya quoi waaw yow xanaa naaxa naaxa nga yow nga mën a def final ci dëkk te mënoo koo xam non non xam nga fu euh, ñu boole ah mën ñu koo xam quoi non non demee tey looy yëg tey ñëw nga fii tey ci combat yi lan lan moo la indi ci biir combat yi mbégte laa yëg quoi mbégte mbégte moom mbégte bu ne nag bi lan moo ko indi kan nga ah? indi non eh, Mansour laay bi loo mën a wax ci Mansour tuuti. non Mansour mën na bëre tey na macha allah. Hmm. ah yàlla xam nga day na quoi a bokk dégg. waaw. ah, ah soo ci woon a xam nga. Hmm. nga soli daal te jàppal ko besam tey. waaw. non hmm. non demee. sànq ba tey may gis ngay yëngal gasama eh, eh, di tuus di bàkku eh, ah dama ko tegaloon combat di nga jël kan euh, <laughs> maak moom dé ah? waxuma la ma so waaye bu na tegaloon combat ci secteur bi di nga jël waaw damay jël naay kan ngay jël ah kan ngay jël wala kan ngay laaj a promoteur bi tegal na ko ku ma jox rek damay jël mais war ngaa mën a viser nii kii buñ kii promoteur bi moo tegalee ma combat day neex non man du ma laaj kenn mais ah ku ma laaj moom dama koy jël moom. mais pare nga bés bu ma la tegalee pour combat di nga jël. waaw damay jël bu soobee ah. bu soobee yàlla. mais noo bisee bés bi tey neex na. non bés bi neex na macha allah. Hmm. looy tàggatoo. ah looy tàggatoo. non ah, du nuyu sama supporter yi du nuyu sama ngaan fii mhm. mais xam nga ah, amul seen seen fay quoi ak di nuyu waa Soob. mais lii Mansour moo ko waral ko xam nga mais Mansour amuñu fayam xam nga ndax moom xale bu baax la waaw ñoo doon euh, di boole nag mais xam nga law moo demee noonu mais bu xewlee nag ah dañoo war a teew waaw dan koo ñaanal nag amu am ndam ah ndax loolu moo ñu indi quoi xam nga waaw boo jox nga àndee ko supporters yi rek ndax tey war damu nañ la de non supporters yi ah maa ngi gërëm ñoom ñëpp ah. waaw ñoom ñëpp maa ngi gërëm <laughs> jaajëf ok